teggi leen li nga xam ne mooy métit bi nekk ci seen ay yaram euh, ngeen dellu seen i kër ñi leen di toppatoo aussi euh, mooy ñi nga xam ne ñooy médecins yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax c'est pas un travail évident mais ñoom ñi ngi ciy jàpp matin midi soir donc merci pour tout Papa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax Fall Sophia maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm Sophie. passe bien. oui alhamdulilah tu m'as manqué. oui non non maintenant je suis là présent. ma manqué euh, vraiment mais, mais je suis présent quand ah même. oui je suis présent. yàlla nga yàgg a teew. alhamdulilah. Mm. na ngeen def. ñu sant bu baax. waaw ah, namm naa leen yéen ñëpp sama ah. caméraman yi gis nga xale yi tey fi mu ne ñoom ñëpp. mais ñu mais très très en forme. waaw meilleur caméraman danañ am ci émission bi waaye. ñoom Omar ñoom ñëpp ñu ngi fi tey actuellement di nuyu ñëpp di nuyu. sama mbokk yi nga xam ne dafa bëgg waalo lool lool lool. dafa bëgg nag soxna si ndeysaan. <laughs> ñëpp di nuyu Prospère di nuyu Prospère bu baax Prospère Ndié. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama doom yi lébu ji. Mhm. xam ne mu ngi dëkk ci xeru géej gi diggante mbaaw waaw waaw ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di ñaanal ñëpp nuyu Sofia Diatta bu baax a baax a baax a baax waaw Amina Amina Zara ça va ma chérie ñoom ñëpp maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di wax barke Cheikh Mouhamadul Abib Mbacke ibnu sëñ Ablahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman sëñ Mountakha Bassirou yàlla na gudd fan lool te ànd ko wér. di ñaanal bu baax a baax sëñ Babacar si Mansour Bal xaw mi di ñaanal waati waawoon yëpp El Hadj Matar Ndiaye Al Amin sëñ Moustapha dégg naa rek démb yaa ngi may laajte. sëñ Moustapha Al Amin. ah. ci la dëkk boo fu mujjee mu la doon laajte di la nuyu bu baax. waaw moom dégg naa daf may laajte yàlla na gudd fan. amiin yàlla na gudd fan. sëñ Moustapha Al Amin ak maa bëgg. ak soxna Kaltoom. soxna Kaltoom dégg naa dégg maa bëgg bëgg bëgg ba su may génn da naan jeex na. dëgg la sax dootul naaw. Mhm. moo tax xam naa suñ ma dee classe de di nga ne ñii de duñu ay taalibe ñii di ma classe duñu ay taalibe de ndax waxuma lenn loo xam ne mënu leen koo dégg lu ma wax rek mën ngeen koo dégg. waaw sëñ Ibrahima Kunta bu Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani maa ngi lay nuyu bu baax borom Touba Ndiassane maa ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Mamadou Kunta ñoom Sidi Fall ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu Abdou Kunta Fall maa ngi leen nuyu yaa Seyda benn maa ngi koy nuyu baax di ko gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan jàmm El Hadj Ndiaga Sène bu ndànk seen maa ngi lay nuyu di nuyu soxna si yàlla na ko sunu borom àggale jàmm aux États-Unis d'Amérique waa États-Unis yëpp yëpp Bamba Day bi ñu koy waaj waa kër Sëñ Touba taalibe Sëñ Touba yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant état bu mu mën a doon nag yéen ñëpp maa ngi leen nuyu Mamor Fall ak Benoît. depuis Columbus ah, Benoît dafa jeex a jeex a jeex a jeex. nekkul États-Unis. Benoît waa États-Unis yëpp kay Benoît ci la bokk. mais Benoît dafa jeex a jeex lan moo dal Benoît. est-ce que du nam rek. Ah, ah kay ku baax la dama ne dafa jeex. te foo ko gisee. day régime. yow kii nekk. day régime. néew ma Benoît dafa bon. waaw day régime day régime moom ne bon waa ku baax. waaye dafa attaché. dafa baax. nangu naa mais jeex laa wax. oustaz. Ah? arrêté non daf ñuy gëlu bu demee daf ñuy gëlu. Ah? bu daf ñuy gëlu ah, <coughs> bopp bu bi da koo muur mu feeñ. waaw ndax xam nga soo jeexee bopp dong ngay dese ay bon wàllam la. Eh. non non non attention. Hmm. attention. non non boo amee yaram. lay tudd bopp. waaye boo jeexee kaal litre <laughs> kaan kaan man de damaa waaru carrément damaa waaru musuma gis lu mel noonu. musuma gis lu mel noonu. kii moom may dugal ah. yow sama gaañ nga. kii moom may dugal. waaw dalaa sori rek xam nga ne moom du la may dara. di nuyu baax. xam nga ko sax Mona Lisa moom dina la mere. sama rak sama rak mon jeune frère. Tamsir soxna gëj naa laa gis lool. Tamsir soxna waaw Tamsir waaw Sicap fii ku baax. ku baax il passe toujours inaperçu. toog jàpp njàmburam. wallaay Pape Khalifa Fall. le petit prince de yi le petit fils de Ndatali Fall doomu Seydina Fall depuis Sococim maa ngi lay nuyu Maguette Ndoye maa lay nuyu monsieur Yugo Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax yéen ñëpp di ñaanal jàmm di dem nag ba Ziguinchor ba Ziguinchor. di ak Doudou Ka. Bouba ak Doudou lom des aéroports. barki dem rek la inauguré Saint-Louis. ndeysaan jël ay xar. am na xar yoo xam ne guddi nañ leen dàq ñu dugg ci kër yi Ziguinchor ñu dugg ci kër yi. bien ça. billaahi barke borom Touba dégg naa dafa joxe ay xar di joxe ay xar di joxe ay xar ba jox sonkoo xar dégg naa sonkoo gedd ko. Hmm. barke borom Touba ñi ma ko wax doonu fen de. ay waay su ma doon Sonko dinaa ko jël ndax am na ñu topp ci Sonko ñu amul xar. mënoon na ko jël rek daal di leen koy jox ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw Sonko topp ci moom te biir na ma ci barke borom Tuubaa su ma ne sama àjjana wóoroon kon tey dinaa génn àdduna ñoo xam ne amuñu xar te xëy na mënuñu koo wax Sonko mais munoon na ko jël joxe ko ñooñu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp Sonko maa ngi lay ñaanal jàmm Bougane Gueye Dany maa ngi lay ñaanal jàmm le président Macky sàll maa ngi ñaan ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp El Hadji Djibi Gueye le grand entrepreneur maa ngi lay ñaanal jàmm waa Ndangura ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmm waa Kébémer waa Louga góor gi si Dieng na la yàlla may jàmm ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim Famara Diédhiou Mayacine Mar démb yaa ngi plage yu Yoff je suis content Doudou Assane Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax Sayer Sarr de la Sénélec Maguette Camara Maguette Mbodj fàttewuma ci kenn kenn kenn Abou Dieye Belom Belom maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak beldaam maa ngi leen nuyu Anta fàttewuma kenn drapeau bu ñaay Pape Anne fàttewuma kenn Mamadou Padane Massata Sène et Bamba Diop mhm. yéen ñëpp Thiané Mbengue Babacar Mbengue depuis les États-Unis d'Amérique Sarak mi lay nuyu bu baax a baax <laughs> jërëjëf jërëjëf papa ñu bi ñëpp ñëpp ma xujja ma xujja lii waa grand Bourkhane Wade ba Papa Ngom Sédiment ay star rek ci nekk. jërëjëf ay star rek nekk ci panel bi. jërëjëf Papa comment vas-tu. <laughs> alhamdulilah madame Diallo. mooy ñi ngi doole sant yàlla bu baax. alhamdulilah rabbil alamina. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. santaat yàlla bu baax julliwaat yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Ah, di wax di nuyu comme ni ko père waxee ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci plateau bi. wallaay di profité di nuyu Benoît sama grand. waxoon nga ñëw bu yàgg dañ la namm nag moo tax ñu ubbee la tey quoi dañ la namm vraiment sa waay war nga ñëw nag gaayen ah, baa ngi daal n'est-ce pas bu ñëwee ngeen xeex di ci profité di nuyu waale soxnaam Mona Lisa ah di la jàmm foofu mu nekk papa yaa ngi yaa ngi gis ah? jàmm yaa jàmm baal ma tuuti yaa ngi gis ñoom ñëpp dañ ne ma seetaan si ñoo ñëwoon Evelyne la Evelyne Mandjouba waaw maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Ndeye monsieur Ndeye monsieur Ndeye. lu ñaan yàlla lu ñaan yàlla yàlla defal jàmm ki ni ma woo 78 346 35 23 xamul ne maa ngi direct 78 346 35 23 woo leen ko ngeen wax ko ne ko góor gaa ngi direct. d' accord <laughs> di ñaanal euh, yàlla ba mi ngi insister. ñi def jàmm eh, papa nag yow man la wala moom la. waa léegi bayal di Dieng mu nuyoo. Ah, ah, ah, yow defal jàmm ñi nga xam ñi ngi siraan fii si Sénégal ak bitim réew. Uh-huh. di ñaan yàlla ñu dugg ci émission bi ci jàmm. Euh, yàlla defal ñu tawféex ba kenn bañ a gedd tey. Uh-huh. ci barke Seydina Mouhamed eh, alayhi salaatu salaam <laughs> yàlla defal ñu jàmm ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabi alamin kenn bañ a gedd tey. amiin yàlla nu yàlla defal tey kenn bañ a gedd tey. amiin ñett yi mat na voilà. ci barke Muhammad alayhi salaatu wa ñaan yi ngay ñaan xamoo sax nu mu baaxee. ci émission bi. gedd sax daa baaxul nag. surtout boo toogee ak say kii. nga loolu mënut a nekk Oustaz. ba yaa ngi ci jàmm. ça va. salaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ji gi dal ci góor gi Baye May Ngone. maa ngi lay fay bu baax. Eh, di la wàcc sa wàcc wala di la yéege sa yéegukaay. boo xam ne di nuyu waa Melax. waaw tey nag ma nuyu waa Melax gépp. Mm-hmm. nuyu ñëpp laay nuyu. jiital si chef de chef de village bi El Hadj Mbaye Penda mm-hmm. teg sa imaamu ratib ba góor gi El Hadj Thierno caan ak mbooleem kilifa ya fa nekk. Mm-hmm. sama maam alaaj Hadj Babacar Mbaj ak waa kër gi ñëpp. di nuyu waa Roso. Eh, ma waxee Roso nag damay nuyu soxna su tedd si ak waa kër gi ñëpp incha allah. di nuyu eh, soxna Sophie mi nga xam ne moo ñu dalal ci plateau bi. ak man layu mon frère. Mhm, <laughs> sama waay ji keroog maa lay seetaan wax dëgg yàlla yenn yi kenn du ko def nit xam nga yenn yi eh, kenn du ko def te père may ngoone père national la dégg nga nga bàyyi ko xel bu baax di nuyu sama waaj ji. lay eh, hmm? si lépp rek keroog kay. Eh, lu ma def. teewul nañ ubbi téléphone yi nañ ubbi téléphone yi nañ ubbi téléphone yi téléphone yi ubbeeku nga bëgg a gedd dem. waaw xam nga lu ma def. waaw kenn sañul kenn sañul dugg gërëm prospère sant ko ñaanal ko waa xam nga xam nga père moom ah euh, déet yaa tudd père de waaw foofu laa jëm li ma bëgg li ma bëgg mu xam ko mooy hmm. boo nekkee kilifa ci kër hmm. ndamal caat sax sa ndam la soo fi ñëwal ndamal caat day nekk sa ndam uh-huh. ndamal borom kër ndawal ndawal taaw nekk sa ndam moom bu ko xoolee noonu rek daanaka du am du posé benn problème del ñëw di permettre doo ah. jàmbur yi waaw ah. waaye waaye bu fekkee dafa dafa dafa kii indi ay yëfam ba pare mbir mi wëlbati ko waat mu di ko gisee neneen daal day xaw a yéeme maa ngi nuyu itam euh, soxna soxna Sophie di ko encouragé ci taxawaay yu rafet yi waaye daa am benn wayjur bu ma yóbbante ngeen baal ma comme daf ma ko yóbbante ne mën naa ko wax ñëpp dégg ko du ma tudd turam mu ne waxal Sophie Gueye ne ko social bi muy def na ci boole kilifa yi nga xam ne yàlla da leen dénkoon teraanga te teraanga seen doole néew te mënuñoo wër di laaj loolu nag yéen da ngeen di organiser wu xool am na ñoo xam ne yàlla defaloon na leen ñi mën bay dimbalewaate waaye léegi mënatuñu. ñu war leen a dimbale te ba léegi yaakaar baa nga loolu mooy dëgg. loolu nag te te waaw mooy li alxuraan di wax rek e, yaxsibuhumul jaahilu aghniyaa mina ta'affuf am na ñoo xam ne boo leen gisee da ngay foog ne jeexaluñ dara boo leen gisee foog ne lépp nee na gàññe parce que dañu ni waaye nag yàlla defal na leen e, e, xëy na la ëpp koomal mooy mooy mooy doylu xam naa loolu ngeen bàyyi ko xel rek. ndax itam yóbbante la boo xam ne mën na am ni ma ko waxee nii am na sax kuy seetaan koo xam ne dana dënam dana rëcc ndax yëg na ne waxal nañ ko soxlaam te loolu tam dañ ciy tàllal loxo wala boog di mbooleem koo xam ne yàlla defal na la nga sa loxo jot sa gannaaw nga bàyyi xel ne am na ñoo xam ne la nga leen di jox mu néew mu bari yaa ngi leen di dimbale waaw bu fekkee nag mënoo ko ndax am na ñuy làqatu si ñuy def lu baax nga gis ko mel ne Sophie Guèye wala keneen ku mel ne moom koy def leneen ngeen jox leen ko itam yaakaar naa dana gën a dimbale ñuy xeetaan maa ngi bëgg lool si toog si plateau bi di ñaan yàlla kàddu yi ñuy yëkkati yëpp yàlla yàlla def ko mu nekk ay salawaat sang bu tedd bi sallallahu tax caat ñëw di la yëkkati ngay jóg waroo nangu. sama man moo ma arrangé. li mu def nii parce que kër gi non borom kër gi nay wax doomam muy ñëw heure. yaram bi yëpp clé la te dama ko jege woon trop man bu ma sori ko moom ma arrangé. <laughs> sant naa loolu ci sori gi ma la sori. problème maa mu am dara la metti te bu tàngee lu mu njëkk a jekku da la koy dóor xoolul lu mu doon <laughs> donc bu ma la nuyoo dam koy dama koy nuyu. ok fay la bu baax. di ko di ko di ko bégee mm-hmm. ci taxawaayam c'est le gardien du temple waaye foog ñu ndax xam-xam bi rot ginnaaw loolu moom nuyu Prospère la pertinence et l'élégance macha allah dëgg la nuyu Oustaz euh, Birama kor xubbi xubbi voilà <laughs> macha allah moom tamit yi de cultivé mm-hmm. alors dame de fer lion waaw Sophie Gueye sama soppe yaay la quoi mais damay bañ mu fuuy. ndeysaan ku bëri tiitar la li ngeen koy gis nii. <laughs> donc nuyu waa Sénégal ci biir ak ci biti di ñaan Sénégal am dal am naataange am ngëneel bi jaay Moustapha ak mag ñu baax. ñu seen barke voilà. jërëjëf Marius bonsoir Sophie. bonsoir ça va. <laughs> Sophie nee na tey jeune homme nga woote jeune homme. ci suuf laa ko sax nag. jeune homme. maa ngi leen di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. di tàmbalee nuyoo bi ci papa. maa ngi lay fay Sophie. di nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV particulièrement ma famille et tous les membres de l'association les racines de l'espoir di nuyu sa yaay Marius ah mu yaay booy ñaaw ah, yal na yàlla guddal sa fan euh, di euh, rebondir deux secondes rek ci li oustaz wax di ko wax ne bàyyi nañ ci xel et je pense que y a énormément de personnes yuy def lu baax ci Sénégal te kenn xamu leen. donc dégg nañ sa message ndax ñun dañuy jéem rek nag boole ko yeneen nit yoo xam ne dañu làqatu suñu ginnaaw. di def lu baax te bëgguñu ñu xam ko. Mhm. xëy na tàllal loxo moo jafe rek. Mhm. mais surtout situation yu mel noonu pour nit. amoon jékki-jékki ñàkk mën a génn wax li ko dal day xaw a mhm. dañ leen di wax rek ñoom tamit ñu rapproché wu ci nit yi te xam ne kuy dox ci kaw suuf rek ajoo ngaa ndimbal moo xam nag ndimbal bi ban ndimbal lay doon donc ñu dimbali la du ab gàcce bonsoir à toi merci euh, Fall. Mhm. yaa ngi rek de la. dara. dañuy dugg foo xam ne rek damaa xam ne tey gàcce dina bareeti waaye nag nee nañu naa fekk moom foo dem fekk ko fa. dinaa gis tey ñu volontaire ñoo xam ne xam naa ne dina dugg ci ligne bi am nañu njëbu ak naa fekku fi ma nekk nu bëgg ma faa puus. waaye ku dëgër bopp laa du daw du ma ragal te lu ma taxaw duma ci dellu ginnaaw te bëgguma ci wàll yéen ñëpp umpale wu leen ne fii amu ci kenn ko ànd ak man. xam ngeen loolu. leen ne ñii ñëpp sama jël na ñuy séentu yéen ñëpp umpale wu leen ne képp kuy ñëw dinañ la naab ñaax la roof la ngóor a yaa ngi jëm ci góor goo xam ne. fii nga koy jaar ak fii ak fii doon lay ngemb comme mbërum làmb moom nan lay ngemb di la yeb comme ni ab séet te man fi ma ne duma fi jóg génn góor nee na ma soo gisee ba nga tàmbalee gis-gis ba nëgë ni ba nëgë ni bi nga taxaw nit mënu la faa ba max dëgg a tax dëgg soo nekkoon ci ab safaan wala leneen de léegi doon lay kalaate puus la ay ñu fi bëgg a toog ak a bari waaye nag am na ci ñooñ amuñu fitu su dëgg jotee nu ànd ndax su dee dëgg da koy wax di seet ku la ca naw walla nga koy wax di ca wutub koom wala nga cay sàkk dara walla ngay waxtaan di xool koo cay neexal wala tu cherches à être aimé ah su dëgg jotee doo mën a kii ah dégg kii doo ko mën a wax man nag ñëpp dem leen ma ànd ak yàlla ak yonant bi ak sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim ak Cheikh Mouhamadul Abib Mbacke ak sëñ Babacar Sy Mansour Balxaw mi ànd ak njabootam ak lu laayeen ak lu ñaseen sëñ Ibrahima Kuntiyu ñooñu nga xam ne toujours maa ngi tàllal sama loxo di leen ñaan rek ni ma koy ñaanee ñëpp ñoom Pape Ilimane Sakho yàlla bu ma juum ndax man ci dëgg laa bëgg a taxaw ñu ne bonne relation nanu wax bonne relation la belle-mère peut-elle prendre la place de la mère bonne relation deux points la belle-mère peut-elle de la mère point d'interrogation doonoo laajte nee nanu nee nanu xamuñu ci dara yéenay atte yi mais nag bala ngeen di atte bàyyi leen ba ku nekk li mu nekk mu yulli ko ba ku nekk gëq ngeen dégg ñoom ñu nu waxee ku ci nekk ak fi nga taxaw man nag fi may taxaw léegi laa koy daal di tàmbali génn daal di koy bàyyi ak ñoom masata seen waa daaree kaam yi yeey leen déglu leen bu baax li nu wax ñu ne ndax ab goro mën naa dema dema dema dem ba jël palaasu ndey way jur ki la mat woon ëmb la juróom-ñeenti weer naaj sa kaw waaw waaw man Mbaye Ngoné Fall ba nga gis te lu gën a kawe sa njortu sax te sab goro dong la naccul sa kaw sa ndeyu boroom kër a waaye dina dem yaag moom ngeen di dem di dem di dem ba dootoo xam seen yoonu kër seen yoonu kër dootoo ko xam dalay ump dalay réer soo génnoon bëgg a dem seen kër dangay gëlëm ndax rek taxawaay buñ la taxawee soo ne i feebar jóg na ma nga ca yaaman di la jox ngay takk di la jox ngay naan soo wanee lor dootul nekk ci jàmm ci kërug àdduna soo nee i yëg dara ci saw yaram di matu suy egg hôpital dàll ya da koy róonale jël service ànd ci ginnaaw daal lay topp di daw rek di daw ba egsi man de gis naa ko laa wax aha kay ab goro mën naa dem ba jël place su jur gis naa ko indi ndayam tës gis naa ko indi ndayam ci tës ah, kooku day am na ay goro yoo xam ne su nekkoon ak ñoom dina ko téye uuf ko teg ko foo xam ne ah ba kenn du ko fa teg bi waxuma la goro boo xam ne waa kër ga sax doon na ñaan yàlla nga teel a génn àdduna nga xam ne ñoom ñëpp da nga leen la jël di indi aw ay lu fa xew yow yaa ko indi naam su ma la ko gis lee léeg dama la koy nëbbal waaye du noonu ab goro loolu du palaasam bootal rogantil defaral de ragal mu génn kër gi wala mu yenu ndabal pay laaw ne moo tax mu dem ndax yéen lu leen takkal dafa yomb lool goro yi bu góor bi ak bu jigéen bi surtout bu jigéen ba sax moo gën a weexu du ko gën a aawlu lu xew nu ne mooma ah kay mën ngeen a jël palaasu ndey ah man de gis naa ñoo xam ne gërëm nañ leen te bala may jóg fii di nga gis ab jeeg bu dugg ne ma man de sama goro nàngam def na ma noo xam ne dafa ko doom ji mu jur fu mu génnee xew fu mu dem suñ ko teralee yëkkati jox ko ab jasneer su man la cay xalaat te doomam a ngi ci kër gi ji mu jur mm-hmm. Mm-hmm. di rek mu dem ñu ne mu ngi jóge mu ngi jóge ca soxna sa soo dajee ak ku baax kooku dina la ko nangul waaye nag soo dajee ak jeeg boo xam ne buggul dara lu li nga xam ne moom la ba bët yilif boppam ak yilif waayam ah su boobaa day metti su boobaa yow soxna si loo liggéey du feeñ loo liggéey nu xarab la loo liggéey doon lay xarab yow su boobaa loo liggéey ci boppam du feeñ doon lay xarab ndax ki bëgg a tukki ak ki bëgg a dee ak ki bëgg a tas ak ki bëgg a toxu ñooyam jàmm dootu fa jib loo mën a def it du ko gis ci këru àdduna loo baax baax ci moom du ko gis waaye am na ñoo xam ne tuuti nga leen di defal nu jàpp laa jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp ba nga ne ay lu buuru sarax mm-hmm. nga def leen junni bu bon ñu soog laa baax waaye benn bu baax bu ndaw nga leen di defal ñu jàpp la ba nga ne jeex na ci këru àdduna doonuy ëmb sa kersa ndax ku lekk sa sangal ëmb sa kersa nga leen di def di leen def ba nit ñi jóg taxaw daal ne ay la yoween jaadootul ñu soog laa ba soog a tàggoog yow kooku am na ay jeegam am na ay jeeg yu mën a mawu yu mën a muñ yoo xam ne soo doon yëg ci ndodd muy dem tamit doo dégg seen baat mukk ci këru àdduna am jeeg yoo xam ne suñu demee ba lâché saay-saaye jaar seen nopp wan leen lu nu gis toon wala nu dey leen am na jeeg yoo xam ne ay xari muumin nanu ana kay ab goro dina dem ba wecc ku ndey am na de am na de dikk leen jërëjëf papa loolu moo doon introduction bi Dieye eh, nee nañ ba xam goro mën naa dem ba jël place ub yaay en résumé loolu la waxtaanee tey ci émission gis-gis ñu bàyyi la nga introduire dégg nañ paa nee na mën na nekk parce que am ñoo xam ne dañuy dem ba seen goro moo leen nan dem ba seeni goro leen di a seeni ndey barke borom Touba. merci beaucoup madame Diallo euh, dafa nekk thème boo xam ne effectivement waxtaanee ko xëy na mën naa bañ a yomb trop. Hmm. ndax euh, day ngay faral di gis famille bu nekk ak réalité hmm. ak contexte ba nga xam ne moom lañuy ñuy sëyee. seulement lenn rek ma si jaaxal man question bi ñu posé. ndax eh, yaayu jëkkër war naa mën a dem ba remplacer yaay ji la jur ci yaay lañ ko posé posé wuñ ko ci papa. Mm-hmm. ndax kër goo dugg bu dee cent kër mën ngaa waat ne quatre-vingt-dix-huit yëpp papa ji moom day boole ñëpp uuf mm. généralement ñi ko ci dul def xëy na exception la donc bu interrogation bi nekkee ci yaay am na lu tax. parce que néew na sëy bu tas nga dégg ñu ne goro bu góor baa ko sonal ba mu dem c'est ex waxuma amul de mais c'est c'est tellement infime qu'on n'en parle pas que qu'on a qu'on n'a même pas besoin d'en parler mm-hmm. parce que il faut que ça soit euh, passez-moi l'expression exceptionnellement exceptionnel n'est-ce pas mm. pour pour pour euh, pour, pour, euh, pour ne pas dire vraiment le summum de l'exception quoi diw def kër gëm doon sëy xat na fa xat goo xam ne mëntu faa toog ndax goro bu góor baa ko sonal néew na trop maintenant pour revenir ci li ñuy waxtaanee effectivement man duma ma du ma euh, posé wu sax question bi ndax yaay mën naa dem ba remplacer goro mën naa dem ba remplacer yaay man damay wax ne goro dafa war a dem ba remplacer yaay. waxuñu loolu. waaw wala déedéet ngay wax. ñii ñu ngi lay seetaan. amoo réponse ah. xam nga xam nga du euh, sañu maa sañu maa wax waaw. ah kon nga noppi. sañu maa wax waaw laaj man dama ne waaw. mais bul tafu ci di tourner maanaam jiixi jaaxa di jël nit ñi di leen teg maanaam foo xam ne yoon boo xam ne voie sans issue la waaw mën naa nekk wala déedéet ta nekk ngay wax waaw mën naa nekk kay. kay.